il faut ngeen comprendre ne que notre problème de diversion c'est pas Cheikh Yérim Seck dafa am lu may wax sénégalais yi tey ngeen xam ko ci Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck encore une fois Cheikh Yérim Seck lu rëy laa leen di wax tey te defe naa ne sénégalais yu bari ci yéen xam ngeen ko la majeure partie des sénégalais le connaît te kenn du ko dindi Cheikh Yérim baayam ak ndeyam ñoo bokk benn baay baayam dafa siif jigéenam bokkuñu yaay nag déglu leen ma encore une fois te lii du wax wax bu ñaaw dama bëgg ngeen déglu ma bu baax dégg-dégg lalaaj laaj Cheikh Yérim du débat Cheikh Yérim Seck yaayam bi ko jur ak papaam bi ko jur ñoom ñoo bokk benn baay baayam dafa biiral doomu baayam maanaam sëram la biiral kooku moo jur Cheikh Yérim Seck moo tax mu nekk violeur doomam nekk violeur kooku du modèle ci Sénégal judduwul ci sëy maamam moo ko yar bu fekkee li may wax du dëgg laaj leen ko ko Cheikh Yérim Seck menn mi ngeen xam ndeyam ak baayam ñoo bokk benn pap lii du ay jiiñaate du ay accusation gratuite du ay wax yu ñaaw sama diggante ak yàlla laa leen wax Cheikh Yérim Seck menn journaliste ndeyam bi ko jur ak baayam bi ko jur ñoo bokk benn pap bokkuñu yaay nag dégg naa ñuy ne yaayam ak papaam ñoo bokk ndey ak baay déedéet papaam moo violé sëram mu jur ci Cheikh Yérim Seck maamam yar ko loolu moo tax mu mel ni mu mel ni Cheikh Yérim sekk du deba Cheikh Yérim Seck bu perte seen temps di wax ci moom c'est un perdant c'est un escroc c'est un imbécile léegi bàyyi leen ko fële te ñu protéger suñu Ousmane Sonko bi kii touche Ousmane Sonko touche tous les Sénégalais patriotes dama ne suñu adversaire juge yu Sénégal yi la suñu adversaire avocat yu bon yi la suñu adversaire waa APR yu bon yi la am na ñu baax nag fépp foo dem ci àdduna am na ku baax waaye ñi ñu ràññee ci ñooñu rek la ñuy dem ñi ñu ràññee ci ñooñu rek la ñuy dem nag pour ngeen xam ko ce combat et déjà gagné il ne faut pas qu'on se laisse faire populaire mooy am Sénégal résistance képp la wax gis ngeen ko Sri Lanka comment ça s'est passé ñun ñëpp gis nañ ko levement populaire amul benn réew bu muy am ñu mën koo arrêté ba mu amee Mali gis ngeen fu mu mujj donc Sénégal leur du Sénégal a sonné notre tour est là sa waxtu bu jotee nag da koy accepter. yàlla yàlla bay sa tool amul benn réew bu nekk ci jàmm boo xam ne ay citoyens am génnuñu xeex seen sovranté la sovranté d'un pays se bat dañ koy xeex pour am ko pour ngeen bàyyi loolu xel c'est la résistance. résistance képp mooy dagg bu mu ay négociation daggul bu mu ay waxu whatsapp daggul bu mu njaam ay tegtalante daggul bu mu njaam képp mooy dagg bu mu njaam te nee naa leen amul alkaati yu doy malgré ses malfaiteurs Benjamin Bandiaki Jérôme Bandiaki Jérôme Bandiaki may wax ak suñu mbokku mankaañ vous êtes une petite population très digne du nom ngeen di ay sénégalais ma bëgg ngeen wax ak seen doom Jérôme Bandiaky le recruteur des nervis le recruteur des nervis ci doomu Mankañ muy Jérôme Bandiaky dégg ngeen ñu wax leen ne Macky Sall léegi numéro matricule oto yi sax caay-caay yi du ñu dawal ak matricule Jérôme Bandiaki maa ngi nii ak jip bu muy dawal boo xam ne amul matricule amatuñu matricule léegi parce que bëggatuñu ku leen identifier kon ñoom ñoo ragal la peur a changé de camp dama résistance résistance résistance képp amul leneen amul layam layame amul waxtaan amul négociation quand on est dans un pays et nos droits sont bafoués ñuy sàcc suñu alal di ñu toroxal di toroxal suñuy waayjur lenn rek moo ñu mën a muccal muy résistance Macky Sall il s'est préparé mais nu aussi on s'est préparé dama ne résistance képp moo ñu mën a génnee ci nguute gii ñu nekk bu ñu yaakaaree ne nguute gii toog ci suñu biir kër yi di ko waxtaane wala yor kurus rek di ñaan waaw d'accord yàlla dina nangu ñaan waaye dafa am wax bu wolof wax mu ne yàlla yàlla béy sa tool mooy lan mooy dangay ngay ñaan yàlla boole ci ngay jëf te jëf yooyu la yàlla di anticiper nangul la ko waaye manoo ñaan yàlla rek ne may ma ay milliards nga toog sa biir kër yaakaar ne camion xaalis dina arrière sa buntu kër nga wàcce ay milliards déedéet da dem liggéeyi ñaan ko yàlla mu barkeel sa liggéey bi nga man cee am li nga ci am donc résistance boobu manta ñàkk il faut ñu génn ñu xeex ak Macky Sall pour mu xam ne moom baayam jardinier bi ak ka nga xam ne mooy yaayam jaaykatu gerte boobu moomuñu réew mi il faut Macky Sall la xam loolu te Macky Sall la ko jox réew mi résistance la woon ku leen ndax résistance moo taxoon Macky Sall jot ci réew mii donc boo leen yaakaaree ne Ousmane Sonko dina jot ci réew mii ñun ñëpp ñu toog ci suñu lal yi dugg ci suñu rondalu ma yaay yi voilà donc lépp dina sotti manta nekk Sonko du nekk président Sénégal bu ñu résisté wul loolu mooy dëgg bi te encore une fois kenn du dee te sa waxtu dee jotul ak lu la waay mën a ñaanal ak lu la waay mën a gëmloo waaye bu leen genn di ngeen dee boo nekkee sa suufu rondalu yaay sa waxtu dee jot dangay ngay faatu nit toog na ci kaw lalam dara feebarul dara jotu ko tonnerre jóge fale daanu ci kawam mu dee parce que waxtu bee jot donc boo toogee sa kaw lalu yaay demuloo résister sa waxtu dee bi bu jotee di nga dee te boo génnee ci mbedd mi sa waxtu dee bu jotul bu ñu tiiree téeméeri bal xam naa nit bu ñu tiiree fukki bal te deewul moo ma gën a wér mi ngi dund di doxi ay soxlaam donc damane ne nañu résister quand il est temps de résister on résiste le président Ousmane Sonko bum ñu gën a gore président Ousmane Sonko bum ñu gën a gore nit boo leen bokkee ànd di xeex benn mbir da ngeen koy xeexandoo ba mu mat sëkk buñ fi toog Ousmane Sonko lenn rek lañ koy toppee mooy li mu bëggee Sénégal li mu bëgg a changer Sénégal li mu bëgg suñu intérêt yi des ci suñu biir réew loolu képp moo tax ñu bëgg koo faagaagal te ñi ko bëgg a faagaagal ñoom il veulent garder no ressource boo xoolee tey ku mel ni Mame Mbaye Niang vingt deux nangami euh, vingt neuf milliards nga xool Amadou Ba ay milliards nga xool diw ay milliards kenn ku nekk ci ñoom détourné na ay milliards te seeni doom ñu ngi jàngee bitim réew donc pare leen pour la résistance la résistance est inévitable pour ngeen dégg ko résistance bi c'est inévitable